mbokk internetu set actu dal leen ak jàmm ci seen flash actu eh, nag tey ci samedi bi nag kii di Cheikh Yérim Seck dafa daal di rek woote jàkkaarlook taskatu xibaar yi ca boobee conférence de presse nag mu daal di weddi ba mu set wicc ne mosul tàggoog soxnaam soosu di astu Dione ba tax na kookee di Astou Dione tardewul benn yoon ngir rek tontu ci mbir mi nu mel ba tax na mi ngi ñuy xamal rek ci page Instagram bu ñu sukkandikoo nag ci publication yi mu def ci page Instagram am mu mel ni nag dafa daal di weddi rek. kii di Cheikh Yérim Seck li mu daal di wax ci conférence de presse bi ba mu set wicc kooke di Astou Dione nag li publier rek ci boobee bataaxal mooy que ni entre nous c'est mort maanaam seen diggante ñoom ñaar dee na te nag nee na dootul defati benn effort ngir rek delluwaat nag ci linu nu mel ba tax na nag moom mais di Astou Dione ba tey mi ngi ñuy xamal rek ci bataaxalam boobu naan que ni àdduna ñaari option rek moo ci am maanaam da ngay nangu dëgg benn wala rek ñaar mooy dégg li nga bëgg dégg ba noppi mu ciy toftal naan que ni àdduna da ciy baax ñuy jël yoon bu baax bi ñi nga xamante ni ñooy déglu nañuy responsable waaye tam ñi nga xam ne ñooy wax nañuy honnête mu nekk nag ay kàddu yu Astou jonn daal di rek posté ci page Instagram am gannaaw rek bi ki nga xamante ni moo di Cheikh Yérim Seck daal di rek weddi li nga xamante ni moo di seen tàggatoo ci conférence de presse bi mu amaloon ba tax na nag moom taskatu xibaar boobu nekk rek mbir mi nu mel mbokk internetu set actu et wey leen di abonné ka bàyyi xel sen chaîne bi di set actu et l'actualité en temps réel